ay jugeem combat bi jox ci Toubabou Dior junior ak bébé Jackson arbitre bi sifflé na 18h18 grand combat baa noonu Toubabou Dior junior bébé Jackson Toubabou Dior junior moo féete à droite ngeen moo ngeemul xonk bébé Jackson moo féete à gauche ngeen moo ngeem bu bi Toubabou Dior Junior mbokk yi booy xool moo xaw a sut tuuti waaye Bébé Jackson moo ko xaw a gën a gàtt tuuti Toubabou Dior wàcc na ba tolloog moom ñu ngay lewaatoo Toubabou Dior teg pied gauche Bébé Jackson teg pied daw na jël ko eh eh Jackson xanaa daa mer door na plaqué na ko plaqué na mbot na ko eh xale dañuy bëre mbot na ko. moo nga jël tànk ba sikiwaat nanu mbataat na ko plaqué na ko da koy daan tubaabu joor plaqué na ko bébé Jackson tubaabu joor daan na bébé Jackson bàyyil jàmbu xoolal yaa ngi koy gaañ yaa ngi koy gaañ bu ko gaañ bu ko def noonu tubaabu joor bébé Jackson tubaabu joor daan na bébé Jackson na ko mu daanu tubaabu joor daan na bébé Jackson